programme bi ñu ngi ko duppee Jokko ak Korité yi ñu ko amal nag di association Jokko taxawu Mbàkke bi ëmb si biiram membre yu tàkku bitim réew ak fii si biir Mbàkke objectif bi mooy fexe ba jàppale askan wi si anam yu bari ginnaaw seen troisième édition bi nag jël na lu takku valeur ay millions jëndee ko ay ginaar jàppale ko ay famille yu fasanti ko Abdou Dieng mooy secrétaire général bi. donc on est à la troisième édition donc la première édition on avait mobilisé trois euh, huit cent mille francs la deuxième c' était un Donc euh, nous allons profiter de l'occasion pour, pour euh, féliciter et remercier encore une fois le nouveau président, M. Abdouladlo, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de l'événement. Donc on a, on a mobilisé toutes nos ressources. Donc tout ce, que nous, tout ce qui est à notre possibilité, on l'a fait, n'est-ce pas, pour, pour arriver à ce jour-là. On remercie aussi la population de Baké. On est, on est très satisfait de venir en aide à ces populations-là, donc qui partage euh, la même foule Ah, monsieur Dieng, où est-ce que vous trouvez les moyens Donc les moyens, c'est à partir des cotisations personnelles. Donc chaque membre, pour adhérer à notre association, vous devez acheter une carte, membre qui coûte 1000 francs. Et chaque fin du mois, vous cotisez aussi 1000 francs. Donc au total, à la fin de l'année, chaque membre doit cotiser francs. à l'approche de la fête, on ouvre euh, des, cotisations et chaque membre est libre de donner ce qu'il ce, Donc il a des personnes qui ont donné 100 000 francs, d'autres 50 donc c'est pas obligatoire. fii ñu ko doon joxe nag jàpp nañu ni ñëpp teewoon nanu mi membre kuréel gi waaye tamit récipiendaires yi ay ndaw jël nañu tamit ay ginaar dem si biir kër yi jox ko population bi élan de solidarité bii de bokk na si luy doxal dëkk rawatina bu ñu tolloo si waxtu wi. ci xayma ren ji incha allah yàlla def na ñu suñu troisième édition première édition bi mi ngi tombe woon nag Covid bi ci la ñu amee woon inspiration ndax. Covid bi gis nañ ni mu déstabiliser woon àdduna bi rawatina Sénégal rawatina Mbàkke suñu gox. olof njaay nag day wax naan mbay ci sa tànk comme ñun ci Mbàkke lañ dëkk ñun ñu xalaat ne Covid bi euh, lañ doon créé station bi ci lañ euh, njëkk a def social social boobu ci jamono boobu dajale woon nañ ci valeur bu trois cent mille jox ko joxe ko ay ceeb ci biir koor gi yàlla def koor gi dikk ñu amaat inspiration bi nag comme Covid bi nit ñi liggéeyu ñu ñëpp taxaw ci lañ amoon inspiration bi njëkk ci dajale lu mat deux cent deux cent poulet ci mooy première édition bi. léegi nag ci deuxième édition bi tamit ren daaw yàlla def nañ def nañ 300 poulets ren jii dem nañ ba 500 poulets mu toll ci valeur 1 million 500 boo xam ne comme ni ko SG waxee léegi ay doomi Mbàkke yoo xam ne tey jii euh, ñu nekk ci biir réew mi ak diaspora partout ci ci àdduna bi ñoo dajale seenam ñàq li ko dale ci dërëm ba million ñu dajale ko ngir delloo ko ci askanu Mbàkke. seen troisième édition bi jàpp nañu nag am nañ si satisfaction totale ndaxte demande yi bare na waaye fexe nañu ba matal lépp.